waaw ñu leen di jaajëfal bu baax a baax a baax tey nag dañu ñëw euh, Tëngéej euh, cité si ci Tako la nekk ngeen jégal ma si baat bi ah dama doon werante rek werante ba <laughs> werante naa trois jours <laughs> moo tax sama baat bi mel nii <laughs> ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a baax tey ñu ñëw si bergerie Al Mountakha euh, fekk sunu sunu copain boo xamante ni vraiment nit ku baax nit ku nit ku am solo Euh, bu ñu yàgg jàppale ci lu bëree bëree bëree bëree bëri muy ISO ISO ñu bàyyi la d'abord nga nga nga nuyoo ak gars ba pare. waaw salaamaaleykum mbokk yi ñu ngi ziar ñëpp. tey sàkku ñaan di leen ñaanal j'espère que lépp jàmm aywa ñu tàmbali waxtaan bi incha allah. Izo Izo peut-être que monde élevage gars yi yàgg nga ci gars yi xam nañ la bu baax a baax a mm. baax a baax. Mm. mais bii que ne toogoo toogoo Sénégal lu bëree bëree bëree bëri. Mm. donc tax na ñu bëree bëree bëri ñam na suñu ñu bëri ñoo xam ne jotaguñ la ràññee est-ce que mën nga ñu wax Izo ba mooy kan. waaw waaw Izo moom euh, daanaka Ismaël loola. donc euh, mu nekk waa ji nga xam ne dafa maanaam judd ci xar. Mm-hmm. waaw suma maama doon élevé donc loolu moom euh, def éleveur donc euh, en gros je suis un passionné quoi mm-hmm. donc élevage lu ma bëgg la daanaka euh, yàlla dafa def nag ñu génn dem bitim réew tooguñu woon mm-hmm. moo tax amaana am na éleveurs yu bëri ràññeewuñu mais yàlla def na yàgg nañ ci élevage lool lool lool lool lool macha allah donc on est revenu au Sénégal toog tàmbali liggéey incha allah donc euh, tey bergerie bi nga ñëw muy Al Mountakha daanaka du sama bergerie mais suma doomu ndayee ko moom donc euh, Nabi Diallo moom it euh, nekkul Sénégal donc mi ngi Angleterre muy rakku Tafa Diallo Tafa Diallo c' était un footballeur il est connu Sénégal mu ngi ci xar yi moom it macha allah il est connu donc waay sama waaj la. donc tey maa koy tegal loxo ci bergerie bi comme que nekku fi te benn lañu. donc tey moom la ñu seet si donc man je préfère sax ñu gën ko waxtaanee moom suba waajooju. waaw d'accord peut être nañu am occasion toomante mu ñu ñu ñu moom. incha allah tey yow yow euh, ci sa ci sa famille wax nga ko léegi sa maam nga nga muy élevé. Hmm. paa bi dégg naa léegi Ismaïla Lo vous avez vous avez des traits ak ak waykat bi Ismaïla Lo. waaw lan moo xew. <laughs> waaw dëgg la dëgg la daanaka Ismaïla Lo moom. Hmm. yàlla dafa def muy sama papa donc euh, sama magu papa la ñu tuddee ma ko mu doon suma waay moom it euh, xam naa dinañ am sax occasion seeti ko incha allah parce que moom it mi ngi ci xar yi ah, waaw donc ñi ngi koy ziar de passage papa ñi ngi ziar hmm. j'espère que yaa ngi ci jàmm baax macha allah voilà donc euh, maa ngi ko doon wax léegi sama njëlbeenu wax hmm. donc dama juddu ci élevage donc ki jur sama yaay hmm. maa ngi koy nuyu de passage muy maam Bokar Bokar Diallo moom en 94. donc euh, depuis lors tàqaleeku ma xar. donc euh, maa ngi ci élevage bi te incha allahu taala ñaanu ñu ko bàyyi ñu ngi ci parce que gis nañ ne tànku kanam rek la am. Hmm. waaw élevage moom tànku kanam la am. d'accord mais noo ko gisee Sénégal fii nii gars yi euh, rarement nga si gis koo xamante ni daal di ko laaj rek. naka élevage bi mooy la alhamdulilah tout va bien. Hmm. wax jooju maanaam phrase boobu moom gars yi dañ ko man man ça fait ça des années. Hmm. maam tout va bien daal déggatuma ko quoi. Hmm. metti na dëgër na repas bi cher na aliment bi metti na nangam ak nangam yooyu yooyu yooyu noo ko gisee ban ban constat nga ci def. waaw dëgg la sëñ Babacar ni ko gaa ñëpp constaté noonu laa constaté dund bi metti na lool lool daanaka ñu bëri. bëgg nañ xar lool mais tey amatuñuy xar ndax ils ont plus les moyens parce que à un moment xar jamono ji boo amul moyen mun a ko yor parce que c'est très très très difficile dund bi cher na maanaam maanaam xar léppam cher jamono ji léppam cher te nag loolu moom franchement état bi war na ci jàpp lool lool lool lool parce que bu ñu demee tey supposons jamono ji saako ngooñ mu ngi jar si mille six mille cinq cent mm. c'est abusé au Sénégal mm. tey ngooñ très normalement waroon nañ dem ba tey war nga mën a jëndee saak mille cinq cent mm. mën a dimbali éleveurs yi mais là là là là c'est vraiment compliqué dund bi metti na torop torop torop te euh, bu doon suñ sago daal état bi jàpp ci bu baax a baax waaw mais tey tey man mënuma comprendre ngooñ mi nga xamante nii ñu ngi koy bàyyee. fii ci réew mi ba pare mu cher ba ba jéggi dayoo. Mm. ñun temps booy dañu doon gis ay saako ngooñ 1500. Mm. ay mm. daaw dong daaw dong ah 2500. xam nga daaw jég 2500 3000. mais léegi si boo déggee saako ngooñ 5000 francs gars yi dañuy daw moo mënatoo ko gis fenn. wallaay léegi c'est quoi le problème baykat yi ñoo yokk affaire wala nu mu demee noonu. waaw loolu nag euh, sëñ Babacar. dafa dafa laaj taxaw jàngat. parce que tey mënuma concevoir. Euh, ngooñ bi ñu koy bàyyi au Sénégal mu mën a yegg ci benn prix boobu donc tey état très normalement dafa waroon intervenir ci loolu ñu xool nan la ñuy oyofalee mbir yi ci baykat yi mu mën a oyof ci éleveurs yi mu oyof yi ñëpp daal. ñëpp tey mën a am accibilité ci ci ci xar yi. parce que tey foofu comme ni ma la ko waxee léegi ci njëlbeen xar yi maanaam du n'importe qui moo leen mën a yor fu mu toll nii. parce que c'est très très très difficile. te tey. jamono toll na fu nga xam ne tey nit ki lépp loo bëgg rek war nga ci mën a yëngu te du metti ci yow mais tey boo bëggee élevage te amoo les moyens tu vas pas le donc loolu dafa laa taxaw jàngat comme ni ma la ko waxee léegi donc euh, état bi moom war na ci teg loxo bu baax a baax a baax te fan yi nag franchement maa ngi dégg yenn yenn éleveurs yi yenn euh, association yi ñu ngi ciy waxtaan bu baax a baax a baax te gëm naa ne di leen jokkox état bi mu mën a yomb état bi baykat yi éleveurs yi loolu moom faaw faw faaw euh, jotaay boobu am faaw jotaay boobu am. pour euh, dimbalante mën a am incha allah. d'accord mu am système boo xamante ni yéen éleveurs de laadum yi teg ngeen ko ah. Mm. Euh, mooy tey jii daanaka ko amul un million deux millions trente millions quarante millions mënoo nekk éleveur de laadum quoi ndax prix yooyu rek laa faral di dégg si marché bi. diw mm. jaay nañ doom trente millions quarante millions. loolu tey jii est-ce que dina nga encourager benn benn nit wax ne passionné la bëgg def élevage am daan bëgg Euh, dëgg la dëgg la parce que tey lépp loo gis ci àdduna ay niveau la tey du laadum yëpp ay jar quarante million du laadum yëpp ay jar cinq cent mille mais lépp loo gis ci àdduna niveau la qualité tey boo déggee ñuy wax xar yu cher yooyu loolu la ñuy woowee la crème de l'élevage et c'est très très normal donc comme ni ñu koy waxee en wolof lu lu baax du yomb waaw dëgg rek a neex yàlla donc tey ñi nga xam ne nag ay débutants lañ nañu xool seen poche fu mu ñu tàmbali ci. jéem a parfaire maanaam pour am la crème man c'est ça que je conseille voilà nouveaux éleveurs ñu ñu jéem ci ci li seen poste mën euh, et à l'avenir incha allah parce que élevage liggéey la maanaam tey dangay ngay un bëgg dem dix donc liggéey moo la koy may hormis les mois je veux dire donc voilà jàngat boobu daal laa ci am man ne tey euh, ay niveau la tey euh, c'est très normal am am xar yu mën a jar yenn prix yu cher yi am am xar yu mën a yomb amoon mon avis quoi. à mon avis ci mala est-ce que duñ dem ba éleva élevage de laadum di féetewu nekk benn côté nga xamante ni du nekk n'importe qui rek muy bëgg a jóg pour dugg ci élevage de laadum est-ce féete benn côté. non je ne je ne pense pas je ne pense pas Babacar tey xam nga. nit ki loo nekk rek di ci gis avancement. Hmm. tey amaana boo tàmbalee ci xar yu yemmaamaay boo amagul la crème si tu es patient nga toog liggéey tey boo amul sax possibilité jënd xaru cher yooyu mais di nga am possibilité liggéey ko donc euh, man problème boobu rek laa gis par rapport aux éleveurs dafa am ñu nga xam ne patience amuñu ko te élevage dafay rimer ak patience dégg nga wax bi tey boo amul moyen jënd xar mu cher mais jëndal xar mi nga tollal parce que tey euh, d'une part xar yëpp bokk maam ah. d'une part xar bokk maam tey la crème boo koy dégg gaa ñi dañoo liggéey def li ci war. donc tey boo amul moyen jënd lu cher jëndal li nga antan te nga liggéey am patience bañ a xaddi te incha allahu taala di nga di nga yegg fi gaa yi yegg. voilà d'accord d'accord Izo ñu ngi lay jaajëfal baax a baax loolu benn partie bu ndaw la woon rek bu ñu doon waxtaan si mu toll ndax. Euh, gars yi bëgg nañ bëgg nañ see dugg mais nag bu ñu gisee patron yu mel ni ISO toog di wax ay trente millions quarante millions alors que yow <laughs> <laughs> benn trois cent mille yow deux cent mille. Euh. da nga naan loolu lii du sama yëf quoi lii dafa ngay toog ni man <laughs> loo bëgg bëgg loo mënta am xam nga loolu dafa metti loolu moo gën a metti da ngeen laaj Sonko ba xam. mais mais patience rek comme ni ma ko waxee rek patience. élevage moom comme ni ñu ko waxee xar la tudd. Hmm. mais xar xaar mooy xaar. toog xaar bañ a yàkkamti. boo yàkkamtiwul tey gis nañ fi ñi nga xam ne. Hmm. tàmbale nañ ci ay xar yu yomb mm-hmm. maanaam xar yu baax nag te seeruñu mm-hmm. amaana niñ ko amee jafewul woon mm-hmm. mais tey jaay nañ fi ay xaru million te jënduñu xaru million donc affaire bi patience la ak liggéey mais tey maanaam liggéey au vrai sens du mot parce que tey da ngay gis da ngay dugg kër éleveur yoo xam ne maanaam ñi ngi naan noo pour jaay bi dafa metti mais tey boo fa duggee di nga xam ne kii jaayam dina metti parce que toppatoo bi ci war defu ko waaw parce que tey doo investir sa si xar yi bëgg di di ñam ci aliment bi di ñam ci ngooñ bi xar yi da nga leen di def li ci war. maanaam da nga leen di war a wutal un veto bu leen di suivre. te la majorité des éleveurs gisatuma ñu am vito hmm. te loolu dafa doy waar ñoom ñooy seen vétérinaire tey xar yi. Hmm. tey am na lu nga xam ne sa wàll la. yow yaa maam wàllu gérance bi jox lekk mais tey dafa am lu nga xam ne liggéeyu docteur yi la foog ñu ñëw jàpp ci. tey boo bëggee gérer sa bopp maanaam résultat bi nga bëgg doo ko am. dégg nga wax bi hmm. donc ci man loolu kese la li ci war nañ ko ci def pour mën ci am liñ ci bëgg. d'accord voilà. d'accord mais tey est-ce euh, vétérinaire yi comme que laal nga ko rek ñu jeexale ko. ci côté boobu noonu. maanaam taxawaay bi ñu war a am ci digganteem ak si jur gi maanaam nag yi xar yi bëy yi est-ce que réellement am nañ ko. maanaam bëri na man ay cas yu baree bari yoo xamante ni dégg naa ko yii gis naa ko. Hmm. yii dund naa ko ak ñoom. sa xar dina feebar ña la envoyé ko mu ñëw. Hmm. fekk na xar bi boobu xëy na sonn ba mënoo ko yëg wala fi nga nekk yow mënuloo. bon parce que xar déplacer xar nekkul yomb. Hmm. déplacer nit moo gën a yomb fu mu déplacer xar. dëgg la donc ñoom benn instant dañuy préférer même nga toog fa di war téléphone war téléphone ba yëf yi mujjee dee. Hmm. waaye après amul problème quoi ñu ne ah ndogal yàlla yàlla xam ne yàlla yóbbu saw ay mu daal jeex. est-ce que ñoom tamit maanaam jikko boobu moom ne man maa si teg sama bopp sama bët ah accusé wu ma leen <laughs> c'est des choses yoo xam ne. waaw <laughs> waaw si ay morom aussi. waaw pareil pareil sëñ Babacar yu bëri. tey ñu bëri loolu moo leen découragé. Hmm. mais tey comme on bës bës lay jàngale ah donc euh, secteur boo dem am na ñu ñu sérieux am na ñu sérieux wul donc tey dañuy ñaan yàlla saa su ne di am ay véto yu qualifié yu mën seen liggéey ba pare sawar surtout xam nga nit ki boo mënee sa liggéey bëgg ko ala kulli haal foog nga sawar ci waaw mais nag euh, man sama sama véto yi sama waay lañ hmm. waaw te des fois foog ma sànni leen xeer hmm. donc euh, je vois que des fois qualification bi day des mm. mbëggeel bi day des kon cawarte bi faw mu des mm. donc euh, di ñaan yàlla rek éleveurs yi mm. maanaam ñu tànn ban veto moo leen di toppatoon seen xar c'est très très important bul dégg ni nit ki veto la rek nga bëgg ko jox sa xar man je ne suis pas d'accord donc nañu xool yan veto lañ koy jox te ñu ñu maanaam am ci fula fayda. ànd ak ñoom ci liggéey bi yàlla mën na ci def jàmm incha allah. d'accord d'accord Izo ñu ngi lay jaajëfal bu baax waaw vétérinaire yi gën leen góorgóorlu seen liggéey. ngeen xam ne waaw ay bakkan ngeen yor nga xam ne da ngeen prêter da ngeen da ngeen prêter serment da ngeen a waat. mais bu leen bàyyeeti nit ki amul moyen rek nga kon xar bi na dee nit ki amul moyen déplacé ko nga ne mënuma déplacé wu. génne leen seen cabinet yi ngeen jël def ko ay boutique di jaay ay médicaments rek pour am xaalis loolu moom dama leen koy wax <laughs> te automédication mais automédical tey fi mu ku ko si def rek gars yi porte plainte mais ku si am sa xar nag nga woo vétérinaire mu lay teg tegaloo loo mënul mais di nga si jéem yow li nga mën hmm. loolu moom dëgg la boo wax dama leen dama leen koy jox xaw ma hmm. ordre xaw ma laan la ñu koy woowee hmm. yow bu xëyee ngeen dem déposé encore seen plainte <laughs> parce que loolu moom foor ngeen ci <laughs> waaye ma tëjee ma noppaloo surtout nag ñu jiital ci jaamu yàlla bi <laughs> waaw parce que liggéey jaamu yàlla la rawatina bakken parce que tey xar yi ay bakken lañu yor donc tey loo ciy def rek jiital ci sa borom. Hmm. surtout man saa su ne loolu laay wax veto yi malheureusement tey nag bëggoon naa sax veto bi fekkee ko un certain Pape Ali mos naa la ko présenté. mais yàlla dafa def dafa def mission. Hmm. tey bëggoon naa mu fekkee ko loolu waxtaan bi gën a mën a yaatu. Hmm. parce que genre veto yooyu ñu jar a xam la waaw nit ñu baax lañu ñu serviable lañu. man dama lay jox euh, exemple. Euh, des fois du ma nekk sama kër ma woo ko ne ko demal xool xar yi mu am bu amee lu jot xar yi yàlla xam na ne du laa dërëm day génnee xaalisam def lu muy def bu ñëwee kat mu génneel ma facture dama def naa lii def naa lii man gis nga genre nit yooyu damay sawar a liggéey ak ñoom parce que da xam ne ñii toppewuñu la ngir xaalis te gis nga man li may ñaan gaañ yi muy veto yi di éleveurs yi nañu bañ a jiital xaalis maanaam ñu jëttal relation humaine boobu d'abord xool sa digganteex sa borom nit koo gis nga jàppe ko ni ko sa jëmm jooju hmm. boobaa liggéey bi dina yomb fépp mais la majorité koppar bi lañ jiital suñu ah, baax waaw loolu nag faw faw faw faw yow mi nga xam ne ah. yaa ngi ci bagage yaa ngi ci émission yi foog ngay waxtaan ak gaañ yi hmm. waaw ñu ñu revenir à la raison insha allahu taala waaw hmm. jërëjëf ISO ñu lay jaajëfal bu baax gouvernement bi dégg ngeen à message yi nga xam ne ISO véhiculé na ko fi am na ñoom lu ci waa gouvernement moom ministre de l'élevage euh, le ministre bu bees bii nii am nga sas bu rëy rëy rëy ki fi nekkoon jàmbaar la waaye yow itam xamoon ne am na lu manqué lu bëree bëri loo war nga ko war nga ko war nga ko mën a mottali war nga ko moom balaa dara di dara di xew vétérinaire am ngeen seen wàllu yéen itam man nag ñi néew doole yi nga xam ne ñoo bëgg ay bi laadum yu baax te classe iso gii téye affaire yi <laughs> man maa leen di waxal yombal nañ xam nga nañ yombal nañ yaatal quoi Euh, Izo tey ñu nekk si si bergerie bi tey base bergerie bi fan lan la sa base lan la si lan ngay liggéey fii. Euh, macha allah donc comme ni ma la ko waxee daanaka boo waxee noonu sax. Hmm. damay revenir at rek fii. su ma nit ak moom daanaka daanaka. waaw benn la moo tax may bañ a. voilà ah, raccourci laa bëgg a gaaw. macha allah macha allah donc euh, daanaka su ma waaj tax koo yàgg ci élevage mais jàmbaar la. Hmm. jàmbaar la donc mën naa ne base fii. Hmm. liggéey na ci Saalum bi. liggéey na ci Boy Ngañ bi. Hmm. Ah, liggéey na ci ci Ramadan bi. Hmm. daanaka y' a pas mal de sang yu fi nekk. te euh, bu ñuy wax la crème la crème de levage boo ñëwee fii di ko am incha allahu taala. donc euh, am na benn maal bu ma la jénneel léegi. Hmm. ñu koy wax Bouba Diop. donc moom moo fi nekk. Pape Bouba Diop benn lañ ko tuddee. Pape Bouba Diop lañ ko tuddee donc. ñu euh, nekk presque koñam ah nekk. justement moom soriwuma ñun ñi ngi takkoo fii. Pape Bouba mi ngi HLM donc c' est pas loin. donc euh, moom la ñuy liggéeyee fu mu toll nii donc moom nga gis euh, mbote moo fi def production bu mucc ayib. Mm-hmm. waaw daanaka nag moom sama waa yi nante la kafe na ci bagage yi nag. Mm-hmm. waaw waaw xam nga. <laughs> <laughs> Nabil Moussa ñu ngi jaar. Mm-hmm. day day kafe rek. Ah. ñu naa ko nag fu mu toll nii bagage yi foog nga téye liggéey. faaw nga tey liggéey donc macha allah donc euh, Bouba Diop di doomu Ramadan. Hmm. ak Adja ajaa di doomu Gengan. Hmm. Gengan euh, di doomu magistrat ak première dame. macha allah waaw waaw ci maal boobu la ñuy liggéey fu mu toll nii. d' mu mel ni maal bi moom la ñuy gis nii euh, moo xam ne maanaam ossature lu mu mënti loo tudd rek ñu fekk ko ci. macha maal bu maal bu doy waar bu yéeme macha allah rabi. Euh, ñu ñaan yàlla mu gën a barkeel ni Pape Bouba Diop barkeel yàggu fi waaye nag barkeel na lool macha allah yàqu fi dara moom Pape Bouba Diop bi ñu koy bi ñu ko duppee vraiment yàggu fi xale bu ndaw teel a wàcc waaye nag barkeel nag macha allah rabbi ñu ñaan yàlla moom mu sukka aw fan <laughs> ñii waaw mu gudd liggéey fii lu bare bare bare bare bare tey tey tey lan nga ñu mën a wax si si caractère yi nga xamante ni tey moo am ci Bouba Diop ah macha allah macha allah loolu moom boo ma ko laajee damay sawar tontu ci parce que tey booy dégg un mal équilibré daanaka jàppal bu ba jóg waaw tey xam nga élevage bu ñu nekk nii gaa dañ ci faral di tudd mensuration waaw te tey gis nga mal bi macha allah rien à dire gudd na njool na rafet na am na ossature bu doy waar donc tey euh, maanaam ci man ñàkkul dara. Mhm. waaw c'est c'est trop dire mais si sama xalaat la. Mhm. donc euh, Bouba Diop c'est un mal euh, voilà bu nga xam ne ku amoon ci produit mhm. yàlla xam na ne war ngaa daw wuti ko. d'accord à mon avis. maal bu yokk élevage la. waaw mal bu yokk élevage. est-ce que est am na ay doom yu fi nekk parce que gis naa fi ay ay ay ay. tëng yoo xam ne moom moom day sa sa ça promet quoi. Ah, koy xool rek sa xel day da ah. nga koy xool rek xam ne ñii moom <laughs> sa xel day dal quoi. tey est-ce que euh, Bouba Diop am na fii ay jabar ak doom. waaw macha allah waaw am na fi ay jabar. Hmm. donc euh, franchement pour dire vrai le gars il a déboursé beaucoup d'argent pour jënd ay famille yu mucc ayib. Hmm. boole na Bouba Diop donc commencé nañu waddal. Hmm. am na fi ay jeunes mâles yu mucc ayib mooy yi ma la wan. daanaka. yu ci bëri toogu fi maanaam yi mu fi njëkk a wàccee yëpp gars yi dañ koy xëccox moom comme ni may forcé ne ko bul jaay mhm. mais dafa mën a alaaji des fois bagage yi li nga yor moom nga mën a sedd gaañ mhm. waaw donc tey papa jee ngi fi mhm. war nañu mun ci liggéey mais macha allah ñëpp ñi ñuy jox produit yàlla xam ne ñu ko te duñ fi gëj donc voilà donc euh, moo xam ay jeune mâle lañ moo xam ay femelle lañ jeune mâle ak femelle bu defee femelle nga ne femelle la gën a mën mu def mâle yi waaw man mii di wax ak yow comme ni ma la ko waxee. ñëw naa fi sama nit la certes. ñëw fekk fii ay mbote yu jigéen yu fi juddu. hésité wu ma dama jënd ñaar yëpp. waaw donc loolu mooy wóolu maal bi. c'est un maal bu nga xam ne macha allah rien à dire. waaw. mu mel ni mu mel ni tey jii nii euh, bon gis nañ euh, ne euh, maanaam bergerie bu bu bu mag la. Hmm. ay bête ay sujet yu ama am solo nekk fi mais gis nañ côté entretien bi mm-hmm. nit ñi nit ñi naam ñi fi liggéey naam gisuma fi ñu bëri mm-hmm. mais gis nañu entretien bi déjà ñun pour jox nañu exemple ne fi ñu toog dafa dafa set wecc amul xet bu fi nekk amul benn salle ci biir bergerie bi lañ toog di def suñu émission di waxtaan moo ñu dàqal ci biti fi mu nekk nii moo ñu dàqal salon bi moo ñu dàqal <laughs> néeg yu climatisé yi loolu lan nga siy wax côté cat gi àdduna lépp lépp looy yëngu rek set da cee baax entretien da cee baax mm-hmm. te franchement euh, Nabil Moustapha suma waay la mais mi ngi mi ngi def li ci war. Hmm. maanaam pour pour booy mën a entretenir bergerie bi hmm. maanaam seetaan nañ ci dara hmm. et c'est très très important tey moo waral li am tey waaw tey comme ni nga waxee ñëw nga fii set na maanaam amul xet donc toppatoo bi jaar na yoon. booy yi fi nekk tamit macha allah rien à dire. benn booy gis nga ko Ablaye. xale la mais ku sawar la. te maanaam ku yaru la. te loolu am na ci solo lool. malheureusement nag euh, comme tey dimanche nga ñëw. dafa fekk keneen ki bougé. donc ñaar lañ fi. macha allah xam nga mooy li may wax tout le temps rek élevage. dafa doon lu doy waar. hormis xar yi am na leneen lu muy créer ci suuf. amaana. Euh, booy yooyu di fi nekk. Mm. ñi ngi am salaire bu baax ñi ngi ciy gis seen bopp. Mm. ñi ngi ñi ngi mën a toppatoo seen i wayjur yi. Mm. ci salaire boobu. donc élevage ci man tànku kanam la am. waa parce que mi ngi créer emploi. tey boo demee ci yeneen bergerie yi tamit di nga fa gis ay dix employés. te ñoo ñëpp dañu am salaire. donc élevage. lu jar a bàyyi xel la. lu jar a fonk la. d' accord Izo ñu ngi lay ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax point bi ñu koy jeexal rek muy wàllum commercialisation bi dugg nga ci léegi nee nga xar yi moom bu wàccee rek daanaka am na ñoo xam taaw nañ pour pour pour jël ko. fi nekk da ngeen di pause wala da ngeen di da ngeen di continuer ci rëcc boobu noonu rëcc boobu nag moom a gënal moom naxar yi di génn bu ko fee ñun ñi mën naa am yàlla mën naa dogal ñu dox ba rek benn xar rek ñu ne ñu ay woon <laughs> dara du yóbbu yow yow du ñàkk sax booy dem yóbbaale insha allah <laughs> waaw par contre comme que xar ñu ngi wàcce waat donc am na yu ñu fas yéene woon téye hmm. mais comme que tey comme ni nga gisee xar yi bëri nañ fi hmm. te amaana production mën a téye lépp hmm. waaw donc tey suñu borom bu la baaxee yenn mbir yi foog nga baaxee ci jaam yi. donc fu mu toll nii. am na yu fi ne te produit yi accessible la. comme sama waa ji moom Baye Fall la. comme ni nga gisee bergerie bi rek. donc euh, du metti la ay mbiram. donc fu mu toll nii am na yu disponible. Hmm. te incha allahu taala ku fi ñëw. dañ fi am qualité. te maanaam euh, du metti lool. Hmm. waaw incha allahu taala. d' accord ah, d' accord Izo ñu ngi lay ñu ngi lay gërëm bu baax a baax vraiment kontaan nañ tey jël nañ sa temps bi dimanche bi ñëpp toog di noppalu. ñu déplacé ko ci ci naaj bu tàng bi. Hmm. waaw ñoo ko yeesi ay nelaw. <laughs> bi ma koy woo naa ko iso jël naa péage bi de maa ngi si péage bi nii <laughs> mun naa kon xaaral ma sangu taf taf quoi donc mu wër na kon dafa fanaan nekk ci bagage yi xëy war a noppalu. Hmm. ñuy jégalu soxna si bu baax a baax a baax <laughs> ñu tey ñoo ko occupé. mais amul problème dinañ ko fay ñu lay ñu lay gërëm bu baax a baax a baax ban message ngay lancé ñi nga xam nii bëgg nañ dugg si élevage et bëgg ci réussir encore. sëñ Babacar xanaa di la jaajëfal d'abord parce que yow moom macha allah nit ku baax nga di la ñaanal ci li nga nekk nii nga am ci ndam élevage bu am ci ndam. waaw ci dara ji Seydouna Muhammad message bi may lancé mooy tey élevage comme ni ma koy waxee tout le temps euh, maanaam bul jiital aspect business bul jiital xaalis soo un passionné d'abord bëgg xar lool doo ko dugg ci xar. dégg wax bi donc euh, dama koy wax gaañu tout le temps ñun étant jeune man j'ai été footballeur donc bi may dugg ci football daanaka yi séntuwuma ci woon xaalis donc dama doon football ngir plaisir donc loolooy élevage boo koy def def ko ngir plaisir ngir passion après nag xaalis dina ci fekk voilà donc nag euh, beneen conseil bi may jox gaañi surtout les nouveaux maanaam tey élevage bi fu mu toll nii xar kenn du ko jëndantu waaw bul dégg ne laadum bi laadum la rek yomb na rek nga dem jënd des fois gaañ yi la xar mi laadum la fekk du laadum hmm. donc maanaam lépp looy dugg boo ci xamul hmm. xoolal ki xam hmm. mu teg la ci yoon waaw te nga bañ a ragal sa poste pour un début parce que élevage comme ni ma koy waxee ki jënd xar pertul mais ki jaay moo perte ak loo mënti jëndee xar yàlla xam na ne perto parce que olof nee na jur xar boo jënd muy lay defal production à un moment donné li nga ci defoon di nga ko jotaat donc amul pertement donc euh, ni may wax gaañ rek bu leen ragal dugg leen élevage tànku kanam rek la am. voilà d'accord ñu leen jaajëfal bu baax numéro euh, ISO moom ngeen di gis noonu mu ngi affiché ci suuf euh, numéro berger mi ngi noonu yéen koy gis ci suuf may invité sama moroom yi nga xamante ñi ngi yëngu ci wàllu média buzz bi baax na Wally Seck geeg Sidi Diop geeg Sonko gi Macky Sall loolu lépp baax na c'est de l'information ah c'est c'est mais nag de temps en temps nañuy dañuy dugg ci éleveurs yi naam gars yi ñu fi gis naa fi ay chaîne YouTube ah gis naa fi ay chaîne YouTube ay Laadum ay Laadum TV gis naa fi. Euh, hmm. euh, bu 2S bi euh, gétt gi xam nga affaire yu nice ñu gars yi ñu ngi koy def mais gars yi dañu leen invité ñu gën a dugg ci affaire yi nañ gën a def ay ay ay reportage ay interview gën a découvrir ce que c'est vraiment l'élevage avenir Sénégal élevage la. mbay la ak càmm loolu yàgg nañ kaa dégg mais de temps en temps ñuy màgg nii. dañuy xam ne wax yi mag jooj noonu du du du wax ju ndaw quoi lu wér a wér a wér Sénégal mën nañoo tënku ci mbay ak càmm ba raw ñëpp de wallaay ndeysaan maanaam day day doxal réew hmm. tey boo demee Maroc rek macha allah élevage bi dox na fa agriculture dox na tey moo tax seen dëkk bi ku fa dugg bëgg hmm. ku fa dugg naw leen hmm. donc Sénégal war nañ góor góorgóorlu ci mbay góor góorgóorlu ci élevage ba tey comme euh, ay dëkk jullit lañ donc euh, maanaam tabaski bu ñëwee kenn waratul sonn di franchement ngooñ. Hmm. éleveur waratul sonn. Hmm. di ko wër nañu góorlu maanaam ci mbay. góor hmm. góorgóorlu ci càmm gi. te incha allahu taala buñ ci góorgóorlu suñu borom dañ ci def ndam incha allah. jërëjëf ñu ngi lay jaajëfal baax a baax jërëjëfati sëñ Babacar jërëjëfati